spécial bi nga xam ni moom la ñu jagleel euh, Lamb Académie te muy am bés bu yàlla sàkk ci waxtu yi mbokk yi tey nag. Euh, dafa am benn loo xamante ni lu spécial la lu am euh, ci biir magasin bi ndax xam nga ni dañu ne jongante la muy foo ak ree ñaari xale yi nga xamante ne nii ñoom seen jëmmi bopp ñoom ñoo ñàkk te war a ñibbi ndax xam nga ni léegi kër gi euh, fukk ñoo ci des am na ñaar ñoo xamante ni nii nag dañuy ñibbi muy El Hadj ak nga xamante ne ni moom la ñuy wax Michel Diémé Michel Diémé ak El Hadj ñoom am nañu seen kàddu ñoom wax nañ ñu nan lañ dundee woon ci biir kër gi ak ndax am nañu regret ci dem waaw wala ak lan lañu jàng ci biir kër gi ñoom ñaar dinañ leen ànd déglu. bi mbapal la rek. gis naa xam nga mais sama yaay moo tax ma jooy quoi mais du keneen sama yaay dafa ma doon woo tout le temps may ñëw fii ma génn gaale di jooy jooy metti mu ñaanal ma mu ne ma demal kon sumay may jooy du pour keneen ku dul sama yaay moo tax lépp yàlla la mais xam nga rek bu ma xalaatee sama yaay daal boobu la affaire bi daf ma kaa quoi xam nga tamit àdduna bi yëpp duñu seetaan keroog mu yoomee noonu trop xam nga xam naa rek lu neex yàlla yàlla moo koy teg jaamu quoi mais keroog daal affaire yomb na trop te metti na ma tamit trop xen tamit yàlla loolu la dogal waaw loolu den dina ma manqué man c'est man ku may xam si nii nga may xamee ba may dee nag bu may dee sax nit ñi si lii lañ may xamee sama comportement bu may nekk ak nit te man dama bëgg doomi aadama même su may kii sax su may après damay fàtte lépp gisoo ma après combat ba suba si ma mel lu faatale bu ma toogee ak nit rek day mel damay am beneen garab boo xamante ni dama koy joué ak nit ñi mais du soxoruma iñaanuma te sama yaay melul noonu samay jikko yaay laa jël daal ku xam sama yaay moom nga pëj non dem bàyyi leen fii xam nga neex na neexut ndax fii liggéey rek moo ñu fi indi woon su jeexee jeex na xëy na dañ fee daje rek di am lu ñuy liggéey bu jeexee rek xam nga ku nekk dem xam nga mais na bokk xam nga rek jëlante waaw bokk ndey ak baay daal tamit dama fee am ñoo xamante ni comme ça ñoom Salma sax mm-hmm. dañuy tooñante xam nga kii murit ma koy wax papa xam nga Salma ma koy wax sama yaay mm-hmm. xam nga c'est que àdduna la rek boo ñëwee benn bërëb gis ay nit lu ñu mel da ngay ànd ak ñoom mel na ñoom noonu bu la yàlla wërsëgalut nag nga xam ne lii mbirum yàlla la man rêvé naa dem ba doon champion te loolu incha allah loolu man yàlla yàlla gëmul nelawul daal xëy na da dul sama chance rek mais bu may ñëw man pour man xam nga rek dinaa ko jël mais lu neexul yàlla daal du baax quoi yàlla naa génn fii dem ba doon champion gën a tegaat làmb dem ba ñoo fi gis ay xale yoo xamante ni ñooy defar làmb académie ma ñëw fii xool si leen xool si li ñu nekk loolu laa gis si defet bi moom foo gis defet day metti boroom mais xëy na lii la yàlla dogaloon daal parce que li war yëpp defoon nañ ko wàllum entraînement comme ni ma la ko waxee woon rek waaw plan yëpp nag pare woon nañ lépp mais xëy na lii la yàlla dogal nag waaw lii yàlla dogal moom jaam mënu si dara comme ni ma ko waxee woon rek affaire du question affaire non non bëre nañ rek dañoo war a am nekk ay ennemis non man instant yi si laa gën a jàpp gaay sax waaw parce que ku si mel ni Alpha moom moo ma daan waaw ak ñoom Daouda xam nga ñoo ma daan mais instant yi ñoo may encouragé lu ma doon def benn dama siy dolli fukk waaw parce que liñ ma wax la te biñ ñibsee keroog biñ ñibsee dañoo maag Alpha ñoo bokk néeg dañoo waaw ñoo bokk néeg si guddi si nii mu may conseillé loo xamante ne waaw foogeewu ma ko woon si moom waa sama yeneen gars yi noonu tamit di ma conseillé loo xamante ne mooy loolu su ma eegee moom fula rek waaw marqué na ma trop parce que instant yi sama waa koñ instant bi affaire yu amee noonu bi ma daanoo waaw ñu éliminé ma gars dañ ma doon woo sama coach woo na ma waaw suñu waa écrit ñëpp waa écrit ñoomin am na ñoo xamante ne sax ñëwoon nañ waaw ku si mel ñoom Issa ay ñoom Omre ñoom Mbengue ñoom Zakaria ñeneen ñi moom dañ ma woo téléphone di ma encouragé naan ma xale bu ndaw laa te nuñ ko waxee noonu la xale bu ndaw laa demaguma fenn amaguma bay ñàq waaw te incha allah li si kanam raw li bët. dina ma manqué tooñante bi fii nii waaw parce que dañuy mbalagante ndoo xam sax kii nii ndax mus ngeen mus nga toog di xalaat ndax di ngeen xamante bay mbalagante yenn mbalagante yi waaw loolu dina ma manqué ak yeneen gaay yëpp gaay yëpp fii nii waa làmb académie yëpp gaay ay boroom baax lañ ku ci mel ni yow Demba waaw yow gaay moom amuñu sa fay parce foo foo fuñ munti ne. yow yaa ngi fa yaa ngi suñu ginnaaw wala yaa ngi suñu kanam waaw di toog ñun duñu ñu ak femme yi ñuy toogal ñoom Salma ñoom Maam Jaara ñeneen ñuy fobeere ak suñu coach Pape Ndoye ñoom Murit waaw ñu fi des moom li ma leen dégg mooy góor góorgóorlu waaw góor góor lu yokk entrement yi waaw déggal gars yi daal seen décision luñ ko jël waaw nga déggal leen waaw te muñ. xamal ne moom fii moom méttiwul waaw méttiwul neex naa muñ parce que armée moo gën a métti foofu te ay góor yàlla ay góor yàlla ay jigéen waxatuma sax ay jigéen di ko muñ waxatuma ay góor yàlla nu ñu war a def. Lamb académie li ma fi gën a marqué mooy ba ma fi ñëwee ba léegi gars moom ñoo ngi teeroo ni ñu war a teeroo di ñu defal li ñu bëgg suba ak ngoon. waaw di ñu wax loo xamante ne dina dékku suñu nopp yi te bu ëllëgee suñu génnee man de moom sama jëmu bopp ah su ma génnee fii nii waaw waa Lamb Académie moom dinañ dégg ne Michel mi moo nekk champion fee incha allah te dama kaa gëm te incha allah naa ko doon ñeneen ñi bokk ñu village mais dem nañ ba Lamb Académie boole ñu. kon boog su ma la nee dinañ dem ba ay tuddante ay doom wala kii am xewam wax ko kee ne kay jóge dëkkam ñëw ba fi nga dëkk ndax la lépp ndax làmb académique. gannaaw bi ñu dégloo ñaari xale yooyu nga xamante ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax a te leen di ñaanal euh, déwén ak jàmm wala ci làmb ji nga xam ne moom la ñu jug moom la ñu dëgmal sax lépp lu ñu ciy wut ñu am ko muy El Hadj ak euh, Michel Diémé xam ngeen ni Popenguine ak euh, yéen soriantewul xale yi nga xamante ni nii. ay catholique lañu demoon nañu euh, ca Popenguine ba ñu demee ca Popenguine nit euh, ba ñu génnee ci seen kër di dem ca Popenguine nit di fa ñaani caméra yi topp na leen ñu xool leen ndax kenn ku ci nekk ak li nga gëm kenn ku ci nekk ak sa diine ñu xool leen ñoom nañu demee woon ca Popenguine muy suñu académiciens yooyu. elle mbokk yi jërë ngeen jëf lii mooy spécial magasin bi nga xam ni moom la jagleel Lamba Académie te muy am bés bu yàlla sàkk ci waxtu wi ñu leen di jox daje incha allahu rabbi ba suba ak jàmm ci beneen fem ci yeneen bagage ci làmba Académie ci télévision Futur Média